sur les projets d'envergure du Sénégal, notamment le projet Grand Tortue Armeim que le Sénégal partage avec la Mauritanie. Antoine Félix Diom a annoncé l'arrivée imminente de l'unité flottante de production de stockage et de déchargement, le FPCO, qui se trouve actuellement au large de Tenerife en Espagne. Il a saisi l'occasion pour dévoiler la période de production de gaz du projet GTA. Alors, ce qui nous projette à un gaz estimé au troisième trimestre

d'amarrage ont été installés avec succès. La mise en tension du réseau réussit et nous nous à un premier baril entre mai et juillet de cette année. Le ministre a également évoqué l'adhésion du Sénégal en tant que membre observateur au Forum des pays exportateurs de gaz le samedi er mars. Pour Antoine Félix Diom, cette adhésion permettra au pays de bénéficier de l'expérience des autres membres dans une démarche visant à prévenir la malédiction des ressources naturelles, un phénomène qui a mis en mal bon nombre de nations à travers le monde.